wajhal jihaadiya ka yawmi badrin bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di nuyu mboolem kilifa yi fi teew yu góor yi ak yu jigéen yi di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Sidil Mokhtar xalif général des mourides di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko wér ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa bi Euh, xam naa comme waxtu wi xam na dañuy tënk rek euh, daan koy sof ci fi sëriñ Seex Aliou ñu koy sant ci daje bii mu woote tey nga xam ne dajale boo xam ne yoonu murit waroon na ñetti weer yu nekk mu woote ko te bañ koo yemale ci ndoxum Tuubaa ndax secteur yëpp aju ci yoon bi soxla na taalibe yi ak population bi di xam lu xew dafay jaay tam ñu di leen déglu ñuy wax seeni xalaat ndax jamono fi toll ah ndoxum Tuubaa nag euh, ni ñu ko ni ko sëñ Cheikh Ali junjee léegi ku nekk xam na ne toll na jamono boo xam ne ci Tuubaa ñaari forage lañu fi gënoon a ràññi muy bu Daarul Manaan ak forage bi ñuy wax forage laa te booba màggalu Tuubaa nit ñi daanañu bari te taxul nii ndox manqué mu manqué ni dëgg la léegi la mbooloo bi gën a yokk waaye téerewul booba it mbooloo daa fi teew kon bu ñuy lim bay tudd lu jege ñaar fukki forage bu ñu nee màggalu Tuubaa ndox mi manqué ba ñépp di ko jàmbat kon am na lu xew li xew mat naa gëstu ci biir mat naa mat naa gëstu ci bitti ndax itam bu ñu fàttee nag ak lu mën a xew ba ñu tàmbalee dégg ne Touba mooy deuxième ville ci réew mi mooy deuxième capitale ginnaaw Dakar moo fi ëpp ay nit ba ñu tàmbalee dégg baat boobu la ñu war a bàyyi xel ci ne am na fu ñuy xool Touba am na fu ñu jëm ak ñoom te foofu ñu jëm ak ñoom lu mat a xalaat la lu mat bàyyi xel la ndax ku ne xam ne ne Ndakaaru ñoom lañ fa doon lépp. fees na dell ba xajatuñu fa ba commencé nañoo génn biir ndakaaru di installé lu bari ay jam ñaajo ak di jëm feneen ba ci euh, aéroport bii ñu mujj ubbi barki démb bu gis ngeen ne génn na liy ndakaaru lépp ay quarante cinq kilomètres kon nag ku xalaatul ne teg nañ bët Touba yi da ngay nax sa bopp te Touba gis nañ ne mbooloo bi fi nekk comme ginnaaw ndakaaru moo ëpp ci réew yi mbooloo fu mu bari am na intere yu fa war a jógee intérêt yooyu nag ku sëriñ bi ñorut it intérêt yooyu am nañu mu ñor kon nañu bàyyi xel ci loolu ñun ñi nga xam ne sëriñ day ñor ak ñi gàddaay ñëw fekk si di sëriñ bi ak ñi nga xam ne bu ak daay doon tàkkit du yàgg bañ tuxu kon kenn ku nekk war ngaa bàyyi xel loolu ah euh, li tax mu mën a bàyyi xel dégg naa kenn ci kilifa yi nga xam ne ci wàllu adduna la ci semaine bii passé yaakaar naa ni ma ko suivre ci télévision ni la ko ñeneen suivre mu wax ne Touba bi ñu ko interpellé fi mu nekkoon mu wax ne Touba ci wàllu ndox ku nekk xam na ne màggal gi mbooloo mi day yokk te bu mbooloo mi yokkoo ndox mi duutu leen mën a àttan te nag bëgg na ñu xalaat ci nu ñuy mën a indee ndox mi ba wax na sax foo xam ne fii am na kilifa yu mu tuumaal ñooñu war nañoo jël seeni responsabilité parce que wax na ne am na CRD bu ñu def ci Diourbel am na kilifa yu jóge tuubaa dem fekke ko te ñoo fa njëkk a tudd mbirum ndox ci Touba kon loolu ku ca bokk war ngaa jël say responsabilité mu wax ne li euh, nga xam ne mooy ndoxum Touba buñ ko jëlee fañ ko war a jëlee ca Touba ko wala la ko jege ci ndox mu neex te dana ñëw ba agsi mu wax ne buñ ko andi woon ba agsi ñoom danañ mën a defi pexe ba jumaa ji ak li ko wër du ñu fay ndox yeneen kilifa diine itam ñu defal leen ruxsa ba du ñu fay ndox nun ca lañ door a dégg ndakaaru am na ñu fa nekk te du ñu fay ndoxu SDE moom moo ko wax moo ne ndakaaru am na ñu fi defal rox sa boobu ba duñu fay dox kon Touba yi loolu mënees na ko faa def man laaj leen ne kon xanaa li jig ndakaaru waru cee jig Touba Touba ñaata kilifa diina ñoo fi nekk am da ngay tànn ñuy fayloo leen ndox bañ a fayloo ña ca des ndox ndax loolu xel nangu na beneen bi ci topp bu kilifa diina yooyu yëpp bañoon a fay ndox ndax dañuy seetaan saalibe yi taalibe sëriñ tuubaay yi ñuy fay ndox ak di naan ndox mu naqari yaakaar naa ne loolu loolu xel nangu ko. ci ñu gàddaay fekk si sëriñ bi bàyyi seen péncu maam bu ñu leen bëggee jox ndox mu naqari mu xumaat di tànn ndox mu neex mi di ko jox kilifa diine yi loolu yaakaar naa ne xel nangu ko te sëriñ Touba du ci bëgg léegi nag léegi nag li ma bàyyi xel danaa andi tuuti benn esprit ci lu weesu ci ginnaaw sëriñ Saliou Mbacké yàlla def na moo fi mujj ci njabootu sëriñ Touba di doomam sëriñ Saliou toog nañ benn bis wax ju amul seede baaxul du ma tuddi tur waaye am nañu fekke jataay boobu ci lenn ci sëti sëriñ Tuubaa yi am nañu ko fekke lenn ci njabootu sëñ Saliou bi nekkoon ci biiram am nañu ko fekke ndax man nii la ñu xëy si bis bisub altene ña ñëw ci man ci sëriñ Saliou la jóge ne ma sëriñ bi nee na nga dajaleel ko sëti sëriñ Tuubaa yi ñu ñëw wuy si ko àllarba ndax dafa am lu mu bëgg a waxtaane ak ñoom ma ne leen sëti sëriñ Tuubaa yépp mënuma leen a boole ci benn jataay kon danaa fexe ba kër gu nekk ma sélectionné fa donte ñaari nit ma dajale leen am na fa kilifa yooyu te nañ jataay bi ñu ngi may dégg am na ci ñooñ ña nga toog ci seeni kër di dégg lii may wax ndax kenn yëguma ci ku faatu ca ñooña yëguma ci ku màggat ba naat kon lii may wax war nañoo xam fi mu tege ñooñu bi ñu àggee keroog fekk na dafa am calcul bu ñu def ñëw jébbal ko sëriñ Saliou ñooñu def calcul ba xamal ko ne ko buntu kër bu nekk ci Touba bu nangoo joxe ñaari téeméer buñ ko dajalee weer bu nekk danañ am un milliard un milliard boobu buñ ko joxee communauté rurale Touba dinañ ci mën a liggéey ndox mi liggéey ci dëkk bi ak yeneen ak yeneen ne ko nag dañoo gis ne koo ko teg ci loxoom ku dul sëti sëriñ Touba yi buñ ko waxee nit ñi nit ñi duñ ko nangoo joxe kon ñoom lañ bëgg nga sant leen ko ñu jàllale ko biñ ñu waxee loolu biñ agsee ba ci sëñ bi sëñ bi moom ndekete waxul kenn li mu daf ñoo sant ci teewaay daal ne yéen ñii de bu ma sañoon bis bu set ma jàkkaarloo yéen te bëggoon naa nit ñëpp maase xam ci ne yéenay man maay yéen te lépp lu ma dul teg sama jëmm ji duma leen ko teg mukk te itam bu ma amee lu may santaane ci diine ji ak yoon wi yéen ñii laa koy sant bu amee lu may santaane lu mel ne la teratang yu jëkkee daan santaane loolu ñii yor communauté rurale bi laa koy sant waaye lu ma dul teg sama jëmm ji du ma leen ko teg daan ne li tax ndaxum Tuubaa nag koo fay te ma sant kenn mu di ko fayiku la tàmbalee ca ma du Moustapha sama mag ju baax ja ba fii ma toog tey mosumaa dégg ko ko fi santaane kon may loolu duma ko ñëw fekk ko foofu ma di ko fa jële keroog loolu ci lañ tàggatoo bañ fa jógee nag nun ginnaaw bi ci lañ door a xam ndekete nos boobu ñu nosoon dañoo bëggoon nun ñu récupérer xaalis bi am loxo yuñ ko teg kon Serigne Saliou moo ñu teggil loolu yàlla nañu ko yàlla fayal li ci am ba des nag wax ji jërul ndox mu neex mi nañu ko indi te fexe ba suñu autonomie bi ñu am nun yoonu murit ñu bañ koo perdre ndax Serigne Touba moo ne woon dee leen jàng tey jàngale di liggéey tey jaamu yàlla mu ne bu ngeen jàngee da ngeen sori bàyyi may ab taxawaay bu ngeen dee jàngale dangeen am tuyaaba ju rëy daal ne bu ngeen liggéeyee dangeen ngeen mënal seen bopp te ku mënal sa bopp kenn du la sañal kon na ngeen fexe ba góorgóorlu di liggéey ndax ngeen mënal seen bopp daal ne bu ngeen dee jaamu yàlla yi dana tax a rafet njort ci seen këru ëllëg muy aljanna kon li mooy ndox mi mën nañ koo jëlee suñ bopp fa mu war a jógee def ci dépense yi ci war a yépp murid yi def ko yoon mi nag nañu ko wax dafa am gàllankoor gàllankoor bi ci am mooy taalib yi sëñ Tuubaa yi ña nga fañ nekkoon murid yi am nañ lu ñu am yàlla wërsëgal na leen yéene nañ ko sëñ Touba am nañ pas-pas bi bëgg nañ koo def ci dëkk bi yéene nañ ko yoon bi waaye li leen gàllankoor dinaa ko wax fii li leen gàllankoor mooy bi ñu commencé dégg bépp liggéey bu jëm ci yoon am ñu taxaw di ci wut ay marché ka laaj 10 pour cent booba yi taxaw ba ñu tàmbalee dégg ne na ñuy a nekk ay actionnaire ca liggéey booba ngir di ca gañe ay marché bi ca nekk ay actionnaire booba la borom pas-pas yi taxaw di xool fu ñuy jëmale seen i alal waaye ay nit a ngi fi yoo xam ne li leen Serigne Touba defal umpale wuñ ko. te nar nañ koo def ci dëkk bi yéene nañ ko Serigne Touba waaye gisaguñu loxo ñu ko teg ñi nga xam ne ñooy laaj 5 pour cent di laaj 10 pour cent loolu na dent ca gannaaw bu ñu bëggee liggéey bi jëm ca kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullah